ndax sëriñ bi lennam lu ne yàlla da ko caa defal loo xam ne defalu ko keneen loolu nag coobareem la ngëneelum la ku ko soob rekk mu defal la ko ndax seetlu nga ne saxaadatu tullaab nga xam ne téereb naxwu la bokkul ci téere yi jàng ngir diine kese mu wax ne ku ko jàng rek mbaa nga jàngale ko am nga taxe goo xam ne ak ñàkk taxe du ca topp loolu bu ko waxee ci téereb naxwu rek rawante ne kon beneen téere bu aju ci diyaaleeg yàlla ak julli ci yonante bi ak màggal yàlla ak wax jaloore yi yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te itam lu sëriñ bi def lu ne day ëmb njariñ yi ya ko jiitu woon yëpp yëpp ba noppi nag àmbaale ay njariñ yi boppam yoo xam ne du nekk ci yeneen waqra jàngal lu dal manaami fa waxtu tëdd nelaw yaa xal yi lii yow sama xarit fii ku lay leet ci gépp guddi xala parti li ci ak diibal maanaam ci ak teylu faatixatul kitaab yi faatixee téere bi arbaxan ñeenti yoon abadan faaw wa qul huwa allaahu aqul huwa allaahu ahad talaatan ñetti yoon fil xadadi ci luba wal baaqiyaati saalihaati ak al baaqiyaati saalihaat arbaxan ñeenti yoon wastaxfiran te nga sàkku njéggal xashuran fukki yoon du lawtin ci ab baat shuriha bopp yoona leef na ko astaxfirullah alxazima te mooy astaxfirullah alxazim allad allad allazi la woon allad laa dafa jublu allazi laa lil xayyi wal qayyum yi ba ci alxayyi wal qayyum fii maa ca la nga xam ne yut laa def na ko jàng wasal yéen te nga julli ala nabi ci yonante bi al mustafa ba di buñ tànn wa alihi ak ñoñam ba xasiha bi ànd ak saxaaba ya alxunafa ña di way sell ak njulit xashran fukki yoon takun kon nga nekk kaman ni ki koo xam ne waxa ba may na li miskinin ñel ab miskin daala ëlloo fi ñeenti junni bin danaa niiri zahabin ci ay dinaari wurus suma ataa toog mu dikke bi xatmatin ci ak wàcce alquran mustahsanatin guddi guñ rafetlu wa xajjate mu aj wa atamarate mu xumra fii kulli sanatin ci bépp at wa arda te gërëm loona alxusama way xuloo ya an walis ko washtara te jënd na jannata rabbi yi àjjanay boroomam ba rawaahu nett li na ko man ka nga xam ne dara xam na sooy tëdd nga jàng faatiha yenti yoon teg ca qul huwallahu ahad yetti yoon teg ca albaqiyaatu saalihaat yenti yoon al baqiyaatu saalihaat mooy subhaanallaahi walhamdulillaahi wala ilaha illallahu wallahu akbar wala xawla wala quwata illa billahi xalil azim wala yent yoon nga koy wax nga teg ca jéglu sa boroom fukki yoon waaye daa am nuñ koy waxee ngay wax astaghfirullah al azim alladi laa ilaha illa huwa man nga caa teg alxayul qayuumu man nga caa tegit alxayal qayuuma kon astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum moom itam fukki yoon nga teg julli ci yonent bi itam fukki yoon moom it daa am nañ koy waxee bind nañ ko ci pegg téere bi allahumma salli ala badri tamaam allahumma salli ala nuuri zalaam allahumma salli ala miftaaxi daari salaam allahumma salli ala shafiihi fi jamiihil anaam noonu ngay wax ba muy fukki yoon lii daal nee na boo di tëdd def ko day mel ne dangaa fekk ab miskin maanaam ab jullit bu loro loru amul dara dara dara nga salax ko ngir yàlla ñeenti junniy dinaari wurus ñeenti junniy dinaari wurus moom bu dee suñ jamono ji bari waay ba day yéeme day mel ne itam wàcce nga alxuraan wàcce gu rafet rafet day mel ne itam aj nga xumra nga ci at mu ne ba tey lii boo ko defee yàlla fayal la ak yi nga xam ne moom nga séq nag doomi aadama yi moo lay fayal ña nga amee loon ak seral seeni xol ba sa digganteeg ñoom dara doxatu fa la ci mujj nag moo ci gën a yéeme lii boo ko defee dane jënd nga àjjanay sa borom waaxu dugg rek moo ca des loolu kon njariñ la wéeree loo xam ne lu mata fonk la di ko saxoo guddi gu ne xëy na fàtte nag moo ci am waaye taxu koo jafe faslu li ab dog la fil fikrati ci xalaat am mat tafakkuru ndaal xalaat faqad ataa dikk na aydan ba tey min anfasil asiyaay di bokk ci gën jaa sell yëf ya xay su usbita foofi xam ne saxaleef na ko ba muy wax yi nga xamee ne mën nga koy fecclee sa jamonoy féex ndax nga dolli ku tiyaaba da cee boole woon xalaat mu ne xalaat day moom bokk na ci mbir yi ëpp solo ci nga di ko def ndax nga jariñu fii ak fële sa waxtu itam fees dell ak njariñ waqaala wax na sax moom alxazali fil ihya ci ihya xuloomi diin xud jàppal tabyiin yi sama biral ne inna nihaayata timaari diini naka yamukaay meññeti diine fii haadihi dunya ci jële àdduna xusulul maarifati moo di amuk xam yàlla wal uns ak wétlikoo ga bil illaahi ci buur bi jëkkëran ci ak tudd faxri fa na nga xam wal unsu te wétliku ga min baadi dawaami zikri day nekk ci gannaaw saxoo tudd ga amat taarufu ndaal xam nga moom fa baadal fikri nekk na ci gannaaw xalaat alxasaali wax na ca ihyaaw xuloomi diine ne diine day bari na ay meññet yu ca jullit bi mën a watte fii ci àdduna ak fële ci àllaaxira waaye nag meññet yooye moom yaar yi ñoo ca féete kaw benn ba mooy xam yàlla ba ca des mooy wétli ko yàlla mu yàlla rek mujj di sa wéttal mais nag yooyu yaar lu ci nekk am na lu koy maye wétli ko gi yàlla moom mujj yàlla rek di sa wéttal moom saxu koo tudd moo koy maye xam gi yàlla itam moom xalaat rek moo koy maye nga xam ne kon wétli ko yàlla ak xam yàlla mooy yaari meññet yi gën a kawe yi nga xamee ne ab jaam mën na ko amee ci sàmm diineem fii ci àdduna wa axbaroo xibaar nañu bi fawqi fikri saaxatin ci kawek xalaat wenn waxtu xibaadata sanati jaamu at laasim na nga taqoo taaxatan topp yàlla mu ne nee nañu wenn waxtu woo toog di ko xalaat ci sa digganteeg sa boroom lay tax nga mëneeg moom ak la wetee mëneeg moom ak màggam ngeen yu demee noonu nga toog wenn waxtu rek di xalaat ci lu mel noonu mu ëpp solo ci yow nga doon jaamu yàlla atum lëm moo xam ne cër yi rek ñooy yëngatu waaye xalaat bokku ca jaamu yàlla at goo xam ne amul xalaat xalaat wenn waxtu rek moo ko ëpp solo ci jaam bi moo ko ëpp njariñ ci moom waaw la mu xamal bi àndal fikrata ci naka xalaat mbir aatun kem ab seetu la li man ñeel ka nga xam ne aamana gëm na bi rahmaani ci aj yéreme ji jàll màgg na xay su xan na fu mu fi gaare mooy fu mu fi feeñee id ngir fikratul fata xalaatu cam si turiixi dana ko wan alxasanaati yiw ya mooy yu baax ya mustabshiran mbir mu muy aji bëkk kama turiixi niki mu koy wane asayiaati ñaawteef ya ne manees na ne ku gëm yàlla moom toog di xalaat day mel ni ab seetu boo xam ne dafa taxaw ci kanamam di xool ndax xalaat gi ci lay xàmmee yu baax yi mu cay bët lam ca defan mu di ko xeeb di jéem mu yokku ba tey xalaat yi moo koy wan yu bon yi mu di ko gën a xàmmiku lam ca weesu mu di ko jéggalu tey moytu mu dal ko ci la ca kanamam kon xalaat ci ku gëm yàlla daa mel ne seetu bu mu taxaw di xool rek mu di ko won yu baax yi ak safaan yi muy gën a góorgóorlu ci lu baax tey jéem a góorgóorlu ci sori safaan yi muy yu bon yi waxee moom xalaat naatu kulli taalibil xulaa mooy melaw képp kuy aji sàkku ay kawe min rabbina tukkee ci sunu boroom arrahmaani mi aj yërëme jàll màgg na waxalaate mu kawe koo gis rek mu yeewu di sàkkub cër bu kawe kawe ci yàlla foo ko fekk rek xalaat ni moom mbiram lay doon du tàggoog moom mukk mukk tamratuha meññatam moom xalaat li saaxibil irfaani ñeel boroomuk xam maanaam ku amuk cër ci xam sunu boroom wusuuluhoo mooy ak àggam li xadarati rahmaani jëm ci péyub aji yërëme ja xalaat bu ne nag day jëmale boroom rekk fa xalaat ba jëm bu dee ko amub cër ci xam boroomam di xalaat nag ci mbirum boroomam da cay amee ak àgg ci boroomam ak gën a jege boroomam wa fikratu zuhaadi xalaatuk way dëddu ya fii fanaa i duniyaa humoo ci jeexuk seen àdduna ji wa qillatil wafaay ak néewuk matal wala rega li taalibiha ñeel way sàkkoo moom àdduna too jibu dana waral isdiyaada nashaatihim dolikuk seen cawarte wa zuhdihim ak seenu dëddu rashaadan mbir mu mu di ak jub ñi nga xam ne ñoo dëddu àdduna bu ñu dee xalaat àdduna ni nga xam ne moom lay jeexe ak àdduna nim ñàkkee wëlëre nga xam ne koo fonk day mel ni moom dalay wan gannaaw bu ñu dee xalaat nag àdduna ni muy jeexe ak nim ñàkkee wëlëre moom àdduna day tax ñu gën a sawar ci lañu nekk te moo di wan gannaaw àdduna gën a sax ci dëgmal ngërëmul seen boroom wa fikratul xubbaadi xalaatuk way jaamuña fi jamiili tawaabihi ci aj rafeti yoolam ba moom yàlla jàll màgg na maxatta fadayli ànd ak gënal ga tasiidu dana dolli raxabatan xemim lahum ñeel leen fii ci aj rafeti yool boobee maxa nashaatihim ànd ak seen cawarte xale yi ci moom laasim na nga taqoo waraxan ak sàmm ñi nga xam ne ñooy farlu ci jaamu yàlla bu ñu dee xalaat tuyaa ba juree ji nga xam ne bu ëllëgee moom la yàlla fayee ña doon jaamu ak ngëneelam lu rëy la moom yàlla xalaat ba day tax ñu gën a xemem tuyaaba joojee gën a xemem lépp lu leen ci àggale wa fikratul aarifi xalaatuk aji xam ja yàlla fil ala i ci xéewal ya wa noama i faatiri sama i ak xéewaluk aji bind ji asamaan tasiiduhu dana ko dolli mahabbatan ak sopp lil xaqi ñeel yàlla mi dëgg subhanahu sorelal naa ko lépp leerul ci moom rabban mbir mu muy buur li kulli xalqin ñeel mépp mbindeef ba tey nee na ku am ab cër ci xam yàlla boroomam bu dee xalaat ci xéewali yàlla yi day tax rekk mu gën a sopp yàlla boroomam ndax ki amub cër ci xam yàlla boroomam leen lu nekk da cay dolliku ak waaru bu dee xalaat nag xéewali yàlla yi xéewal jaam ñi dañu wugute lool te bari lool day tax mu gën a sopp yàlla boroomam wa bunu abi jamrata ibnu abi jamrata faxlu diini kay kóoyul diine radiya yàlla na doole gërëm an walis ko allahu yàlla ku laxiin ci bépp waxtu nas sa yaxal na bi ànnal fikra ci naka xalaat fil azmaani ci jamono ya afdalul amali moo gën jëf ya li dil imaani ñeel boroomu gëm ibnu abi jamrata nee na kilifag diine gu mag a mag la mu ñaan yàlla dolli ko gërëm kilifa googu wax na ne xalaat moo gën jëf yaram ju àndut ak xalaat ku gëm yàlla bu dee xalaat lam cey amee ci dolli ku gëm ak njariñul biir ak bitti mooy ëpp solo ci moom bu doon jëf rekk ci ay cëram noonu te boolewu ca xalaat boobule idi ngir ilmu naa sunu xam-xam alqatxiyu bay ko jóg dogu lay sa yaxsulu du mën a am illaa bi fikratin dara ci xalaat bi dihnin ci am xel yaaqilu moom dana xellu ndax nee na xam-xam bu wér a wér bu amul werante xam-xam bu wóor mel ne rek nim la wóore ne wàññi bu ne ci benn lay tàmbalee ak nim la wóore ne ñaar mu ëpp benn xam-xam bu demee noonu nee na ci xalaat rek lañ koy amee waaye jekki-jekki am ko te xalaat jiituwu ko yombut wa hakasa niki nii al imaanu gëm ga laysa yasduqu du dëggu illa biha dara ci moom xalaat aydan ba tey xalaamaa ci kaw la nga xam ne ittafaqoo dëppoo nañu ca nee na it gëm dëgg-dëgg balaa mat faw rekk xalaat da koo jiitu waaye gëmug tëb dal rekk te xalaat jiituwu ko du mate noona moo tax mu ne walay sa tasdiqun déet dëggal wala imaanun du caageenu gëm bii ci moom yàlla boo ay dal fikri ci gannaaw xalaat yaa ixwaanu yéen mbokk yi kamislil imaani di mel ni ki gëm bii ci moom yàlla badihatan ci ak jori maanaam ci ak tëb dal rek mooy badihatan fal awalu gëm gu jëkk ga al akamalu mooy gën a mat faltante bi na nga yeewu tëb rek dal dal di gëm fa saasay saasa te xalaat jiituwu ko du yem ak gëm goo xam ne xalaat da ko jiitu gëm gi nga xam ne daa tegu ci kaw xalaat ba xol ba leer kumpaam deñ mooy gën a mat faaw faaw mooy gën a mat gëmub jekki-jekki rek tëb dal wa axbaroo xibaar nañu bi àndahoo ci naka moom xalaat afdalu moo gën min ibadati dëhëy ci jaamu jamono bilaa xulfin ci lu benn wute yaa in nu bopp dana gaar id ngir alfataacam sa ida tafakkara ndem xalaat na xawiya dëgër imaanuhoo gëmam ga xaqiiqatan ci dëgg-dëgg kamaaru yi niki nettaleef ko wa zaharata feeñ alxaqu dëgg ga lëxoo ñeel ko yaqinan ci lu wóor fa yaxtawi te muy làq as safa a sell ga wa tamkiin ak dëgëral ga ne wax nañu ne jekki di xalaat moo gën jekki def geneen jaamu yàlla goo xam ne àndut ak xalaat ndax ki gëm yàlla bu dee xalaat ak gëm yàllaam day gën a dëgër dëgg fis ci kanamam leer nañ mu jàkkaarloog moom mu daldi am ak sellu biir ak bitti ak gëmam dëgër këng ci boroomam ak lépp lu ñu war a gëm wa quwwatul imaani kàttanu gëm ga bil jabbaari ci yàlla mi ab notaakon bi qadri taamiixika nekk na ci kem sa xóotal fil afkaari ci xalaat ya kem na nga xóotale say xalaat ak na nga koy yàggale noonu la sa kàttanu gëm yàlla di dëgëre fa adim kon na nga saxal an nadara xool ga fii mir aati fikrin ci seetub xalaat maxal xalwati ànd wéet fil awqaati ci waxtu ya yebin kon bir mooy kon feeñ la ka ñel la alxaq dëgg ga xunaaka foofee yaa xalilan yow ab xalit li annahoo ngir naka moom sababu iqaanil xalili mooy sababu wóolug xaritub yàlla ba xalal xabibi yàlla nekk ci soppe ba waxalehi te yàlla na doole nekk ci moom ibrahim waxalaa jamihihim ak ci mboole seen ñoom yonante yi azga salaami man gën jaa selli jàmmi yàlla mi nga xam ne xalaa kawe na ndegam wax na la xalaat ni mu amee njëriñ mu ne la kon da ngay jàppi xalaat muy ab seetu boo xam ne foo toll yaa ngi taxaw jàkkaarloog moom di xool di gis foo toll del wéet di xalaat day mujj rek kon dëgg leer fi sa kanam nga jàkkaarloog moom ndax ne sunu maam ibrahim ab yonante la te ab yonante moom ak xam yàlla ak wóolu boroomam lay indiwaale ci àdduna waaye moom daa fekkan ay nitam nag ñuy jaamu biddiw yi ak yàlla sàkk ci asamaan si yàlla may ko nag ci dolli ko xalaatam mu mën caa jonganteeg ñoom ba xamal leen ne leen yi ngeen di jaamukat duñu yàlla ndax yàlla nekkul luy nëbboo ko feeñ di yokkoo ko wàññiku di yëngatoo ko dal yooyu yëpp melaw mbindeef rekk la moo tax ci saaru al anaam ba ibrahim bëggee jonganteeg ñoom ci fekk leen ci lañu jàpp wax caag ñoom ba ñu yeewu daa bàyyi ba guddi ga lëndëm mu ne leen ah biddéew bee de moom ne ngeen mooy saa boroom yéen itam mooy seen boroom ah wax ngeen dëgg de waaye noonu la ko waxee ngir rek fekk leen ci lañu wax ba yey leen ca bañ demee nag ba biddiw ba suux mu ne ah man nag day yàlla joo xam ne day fekk ka suux moom xawma ko kooku de moom yéen a koy def yàlla waaye man day du sama boroom ñu demati ba weer wa feq mu ne ah wax ngeen dëgg nag kii de moom mooy sama boroom ba weer wa suuxee mu ne ah laa waxan ca biddiw ba de ñëw na ci weer wi yàlla ji suuxa ka feq de moom ku xamul rekk moo koy def yàlla ne ah man day kii yàlla dëgg-dëgg yàlla na ma gindi ba xam ko jaamu ko moom dong te bañ a jaamu leneen lu bokkut ak moom su ma gindiwul rekk day danaa sànku ne ni ngeneen ñi sànkoo ñu demati ba jant bi fenk te xam nga ne moom moo gën a leer mu ne ah wax ngeen dëgg ki nag de moom ca dëgg-dëgg moom wax ngeen dëgg mooy sunu boroom maa ngi yéen ndax kii moom moo gën a rëy biddiw ak weer ak yeneen te moo leen gën a leer naka jant bi sonn ak mu ne ah laa waxante yee day ñëw na ci jant bi yàlla ji fenk ka sode moom xawma ko na leen wóor ni man daal yi ngeen wax yépp ne ñooy yàlla duma ci jàppee kenn kenn kenn yàlla maa ngi dëgmal ki nga xam ne moo sàkk yii moo sàkk leneen te moom rek mooyoo ku ko jaamu fës mu ko yéenee booleeg dara dara mbaa kenn kenn mbaa lenn lenn alquran moom la nett li ci falamma janna alayhi leylu ra'a kawkaban qaala hadha rabbi falamma afala qaala laa uhibbu al-aafiliin falamma ra'a al-qamara baazighan qaala hadha rabbi falamma afala qaala لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين kon ibrahim mësta umpale ci wàllu boroomam mësu caa sikki sakaaka jeexi jaaxa waaye fekk aw nitam ca lañuy jaamu mu jëmale ca xalaatam yàlla dolli ko ca ak waar mu waqante ca ak ñoom ba yey leen xamal leen ni leen yooyu yëpp kat dara du ci yàlla nan bokk jaamu yàlla mais loolu ab cër la bu ko yàlla may ci wàllu xalaat ak jonganteeg ay nitam ci gannaaw ba ko yàlla cëralee nag mu di yoonante mësta umpale boroomam benn yoon yaxsulu dana ame bil fikri ci xalaat mina yaqini ci wóolu fii saaxatin ci aw waxtu waaxidatin wu di wenn fi diini ci diine maa loo xam ne laysa yaxsulu du am lëxoo ñeel ko wala xabada ak doonte jaamu woon na jamiha dëhërihi mboolem jamonoom ja bi xëyri yi ci ludul xalaat abadan mukk maanaam wenn waxtu rek nga toog di xalaat xalaat bu sell mën nga caa amee ci yaqin ci sa diine sa digganteeg sa borom loo xam ne boo doon jaamu sa jamono jëpp jëpp te boolewoo ci xalaat boobu du tax nga am ko ca fa yatta yassaru tey jàpp ni xaalihi ci moom addiinu diine kama nassa ni ki yaxale bi ci loolu alfata waa ju baax ja alfatinu koy aji xellu ibnu zahidin te mooy ibnu zahid aljih bisu kadi ab gëstukat ad daymaani kay ko jug daymaan àllihi yàlla na doole nekk ci moom sarmadan faaw rida rahmaani ngërëmal aji yarame ji xalaat boo ko daqoo mbir yi day leer fi yow nañ te bu mbir mi leeree fi yow rek la disoon ci yow ci diine day wef ci yow tooy noonu la ko gëstukat bu réy boobu waxee ibnu saayid ak daymaani wa baaduhum lenn ci ñoom ajaaba tontu na xiina xiila ci waxtu wa nga xam ne waxeef na lëxoo jële moo ci topp ci waywale xiina xiila ci waxtu waxeefee lëxoo ñal ko ko bi ma ci lan xarafta nga xame rabbaka sa boroom aljalila kii aji màgg mu ne bi naqdiya ci sama firi jami xamaam mboolem la nga xam ne intara gaaroon na minal xasaa yi bi ci ñu dogu tafakkar na nga xalaat fad faran kon nga tuufu am na kuy laajal ne ko waaw foo jaar ba am cër bii nga am ci sa boroom xamee ko ni nga ko xamee mu ne xanaa la mu fekk ñu wax ba dogu ci rek bañ caa tënku ne noonu la xanaa tojal ko saa bopp di ko xalaat di ko seet di ko seetal saa bopp ba mbiri leer ma nañu rek loolu day ci laa amee xam gii ma amee waxayru ma li gën ci li nga xam ne alxamdu jaam ba yekkoon dana nekk daa fikkarin di boroomi xalaat fii ci moom assamaawaatu moo di asamaan yi wal ardu ak suuf sa fil xabari ca xibaar ba yi ñu mën a xalaat dafa bari ndax mindaafu ni yàlla yi lu ci ne rek la ci nekk ci kiimtaan ñu mën a xalaat du jeex mu ne nag na addis ba waxee daal lépp lu jaam bi xalaat bëgg caa doole ku waaroo ku gëm asamaan ak suuf moo ca jiitu wa baadaha nekk na ci seen gannaaw fikratuhu xalaatam nga fi ni ami ci xéewal ya li annaha ngir naka xalaat googu taasiidu day dolli xobbal mun xi mi sopp aji xéewle ja boo weesoo nag xalaat ci asamaan ak suuf xalaat ci xéewal yàlla yi muy xéewal jaamam ñi rawante yooyu sa jëmi bopp lam lay xéewal xalaat googu moo ci war a topp ndax day tax nga gën a bëgg yàlla ndax boo seetloo lim la xéewal rek danga koy daal di gën a bëgg wal fikru xalaat ga fii sawaabihi ci yoolam ba lil mu'minina ñeel way gëm ñi xadan ci ëllëg yees yi du dana dolli raxbatan xemem lil muslimina ñeel jullit ñi fii taaxatin ci ak topp la ñeel ko ma xaj tihaad ànd ak farlu wa zaakate loolu xayru naf yi mooy ngën ji njariñ li xibaar yi ñeel jaami yàlla yi ñeneen ñi gëm yàlla buñ dee xalaat tuyaaba ji nga xam ne moom la yàlla fayee ñu gëm tey topp boo ëllëgee tey tax rek ñu gën a xemem topp yàlla gën caa farlu te nag lu la xemem loo topp yàlla ak farlu ci rek am na ci yow solo wal fikru xalaat it fil xiqaabi ci mbugal nga lil kuffaar yi ñeel yéefar ya fi naari ci